actualité bi nag ñëpp xam nañ ni moom mooy diggu safar bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ñu leen koy toppal ci ay reportage di leen ko toppal ci kër sëriñ yi di leen ko toppal aussi ci lépp loo xamante ni war a na amee fi nga xamante ni moom mooy ci Touba présentement ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy ci jannatu tout juste fi nga xamante ni moom mooy juma juma juma juma Serigne Saliou gis bu ngeen ko gisee nii euh, xam ngeen ni fii ñu bëri xamee nañ ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dale mais tey ji xamante ni moom mooy altine tombeeg le 19 août 2024 tey mu tombeeg taw boo xamante ni am na fi nga xamante ni moom mooy ci Touba mën nañ sax fépp fii nga xamante ni moom mooy ci Sénégal ndax foofu tamit ca ndakaarook lu ko wër ñu ngi ñuy xamal ni ci suba ba léegi ay taw mu ngi jóge ci kaw di wàcc li nga xamante ni moom mooy ci suuf si donte sax euh, taw xéewal la comme ni ñu koy waxee donte te sax taw baax na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi ak euh, surtout ñi nga xamante ni ñoom mooy mag yi mais présentement fi nga xamante ni moom mooy ci Touba gis ngeen li nga xamante ni noonu la def ci inondation yu doy waar yoo xamante ni nemmeeku nañu ko fi bi ñu fi yegsee ak léegi booba tey ñu ngi dugg ci koñ yi booba tey ñu ngi dugg ci ruq ak ruq yi pour mën leen toppal li nga xamante ni moom moo amee fii nga xamante ni moom mooy ci Touba parce que it du rek dañ leen di toppal sëriñ yi du rek dañ leen di toppal ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, célébrité yi déedéet mais it dafay baax tam ñu leen di toppal li nga xamante ni moom moo fi actualité surtout ci li nga xamante ni moom moo xew présentement fii ci Touba gis ngeen ko nii bu ngeen ko gisee nii xam ni euh, taw bi taw na xam ni taw bi euh, taw na lu bari taw na lu bari taw na lu bari ah même si que nit ñi ñu ngi commencé di ñëw Touba ñu ngi fi commencé di nemmeeku embouteillage yu extraordinaire yoo xamante ni nit ñi ñu ngi bàyyeekoo fu nekk ndax semaine bi ñu nekk wala bokk weer wi ñu nekk xel yëpp ak xel yëpp bëgg-bëgg yi du fenn dul fii nga xamante ni moom lañu juble di Touba ba moo waral gis ngeen ni nit ñi commencé nañu di di ñëw jugee nañu fu nekk mais gis ngeen tey nga xamante ni moom la ñu xëyee fi nga xamante ni moom mooy ci Touba ak li ko wër gis nga inondation taw bu métti mu mu mu créé fi inondation bu grave fi nga xamante ni fii la ñu nekk nii gis ngeen ko ah, ndox mi bari na fi ah, pour nga jàll moom Euh, pour nga jàll moom boo amul li nga xamante ni moom mooy charrette mbaa oto boo xamante ni dina la mën a secourir nga mën a def sa déplacement ah nga mën a def sa sa sa sa jéggi dina dina métti lool gis ngeen leen nii ñoom ñu ngi dem ah wax nañu nag nee nañu bëgg nañu fi nga xam ne moom la ñu ñëw di Touba balaa euh, balaa ajuma bi nga xamante ni moom mooy jouru màggal gi ñoom bëgg nañu ku leen secourer ci li nga xamante ni moom mooy ndox mi parce que tamit bari na nit ñi dañuy ñëw gan yi dañuy gën di ñëw boobu ba tey yéen ngi gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, du ma ne rek murit yi jullit yi ah, ñoom ñëpp bàyyeekoo nañu fu nekk ah, pour mën a ñëw fi nga xamante ni moom mooy ah nee na fii kese amul ndox ah waaw waaw dégg ngeen dégg ngeen ngeen loolu dégg ngeen xam nga nu ñu leen mën a dimbalee ci li nga xamante ni moom mooy ndox bi rek ah dina doon li nga xamante ni moom moo leen di gënal bu baax ñun ñii sax bu ngeen xoolee pour ñu amal leen vidéo bi comme nii tamit dafay baax ñu nit ñu dugg sacrifié wu jaar ci biir ndox mi donte lépp lépp lépp mun na nekk waaye ak lu ci mënti am rek ngeen xamee ko ni dañoo bëgg rek solal leen li nga xamante ni moom moo fi amandeegum ci bi ñu fi yegsee ak léegi ndax ci suba ba léegi ñu ngi dugg ci coin yi di après sax nañ leen dugalal yeneen image yi nga xamante ni jëlal nañ leen ko ci yenn euh, ci yenn koñ yi ci yenn euh, bërëb yi nga xamante ni dem nañ fa pour toppal leen li nga xamante ni moom moo fa amee woon ah, ci ci ci ziar yi ci lépp loo xamante ni rek pèlerin yi tamit bi ñu yegsee mbégte bi nga xamante ni dund nañ ko fi ah, bi ñu fi gëjëg léegi am na si ñoo xamante ni nee nañu bi ñu fi gëjëg léegi mën nañ ni daaw la ci ci ci ci ci ci màggal gi ah ñii ne ci kasu rajab bi yooyu yëpp incha allah dinañ leen ko monteel dugalal leen ko ñoom it ñu ngeen gis nga xamante ni ñoom noonu la ñëwee si si ci bërëb bi nga xamante ni moom la ñëpp di dawlu ñëpp moom la ñëpp di daaw dëgmal fi nga xamante ni moom mooy ci màggal gi mais daal tey li nga xamante ni moom lañu leen indiloon ginnaaw ba Euh, président Diomaye moom it ñëw na fii daa def tukki nemmeeku bii moo nekk sax troisième fois am biñ ko faleek léegi ndax biñ koy door a fal ñëwoon na fi seet si nga xamante ni moom mooy xalif général ñu koy ñaanal moom it mu gën fi yàgg ah, yàlla gën ñu ko fi bàyyil ak mbokkam ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk comme ay xalif généraux ñoom ñëpp ah, mais daal lii daal moo amagum fi nga xamante ni moom mooy ci Touba kon dañuy déggu ngeen xool li nga xamante ni moom moo amee ci biir ak yeneen reportage incha allah voilà salaamaaleykum mbokk am internetu univers info TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo am mbégte di leen toppal li nga xamante ni moom mooy actualté actualité bi nag ñëpp xam nañ ni moom mooy diggu safar bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ñu leen koy toppal ci ay reportage di leen ko toppal ci kër sëriñ yi di leen ko toppal aussi ci lépp loo xamante ni war na amee fi nga xamante ni moom mooy ci Touba présentement ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy ci jannatu tout juste fi nga xamante ni moom mooy juma juma juma juma sëriñ Saliou gis na bu ngeen ko gisee nii euh, xam ngeen ni fii ñu bëri xammee nañ ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dale mais tey yi nga xamante moom mooy altine tombeeg le 19 août 2024 tey mu tombeek taw boo xamante ni am na fi nga xamante ni moom mooy ci Touba mën nañ sax fépp fii nga xamante ni moom mooy ci Sénégal ndax foofu tamit ca Ndakaar lu ko wër ñu ngi ñuy xamal ni ci suba ba léegi ay taw mu ngi jóge ci kaw di wàcc li nga xamante ni moom mooy ci suuf si donte sax euh, taw xéewal la comme ni ñu koy waxee donte sax taw baax na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi ak euh, surtout ñi nga xamante ni ñoom mooy mag yi mais présentement fi nga xamante ni moom mooy ci Touba gis ngeen li nga xamante ni noonu la def ci inondation yu doy yoo xamante ni nemmeeku nañu ko fi bi ñu fi yegsee ak léegi booba tey ñu ngi dugg ci koñ yi booba tey ñu ngi dugg ci ruq ak ruq yi pour mën leen toppal li nga xamante ni moom moo amee fii nga xamante ni moom mooy ci Touba parce que it du rek dañ leen di toppal sëriñ yi du rek dañ leen di toppal ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, célébrité yi déedéet mais it dafay baax ñu tam ñu leen di toppal li nga xamante ni moom moo fi actualité surtout ci li nga xamante ni moom moo xew présentement fii ci Touba gis ngeen ko nii bu ngeen ko gisee nii xam ni euh, taw bi taw na xam ni taw bi euh, taw na lu bari taw na lu bari taw na lu bari ah, même si que nit ñi ñu ngi commencé di ñëw Touba ñu ngi fi commencé di nemmeeku embouteillage yu extraordinaire yoo xamante ni nit ñi ñu ngi bàyyeekoo fu nekk ndax semaine bi ñu nekk wala bokk weer wi ñu nekk xel yëpp ak xel yëpp bëgg-bëgg yi du fenn dul fi nga xamante ni moom lañu juble di Touba ba moo waral gis ngeen ni nit ñi commencé nañu di di ñëw jugee nañu fu nekk mais gis ngeen tey nga xamante ni moom la ñu xëyee fi nga xamante ni moom mooy ci Touba li ko wër gis nga inondation taw bu métti mu mu mu créé fi inondation bu grave fi nga xamante ni fii la ñu nekk nii gis ngeen ko ah, ndox mi bari na fi ah, pour nga jàll moom Euh, pour nga jàll moom boo amul li nga xamante ni moom mooy charrette mbaa oto boo xamante ni dina la mën a secourir nga mën a def sa déplacement ah nga mën a def sa sa sa sa jéggi dina dina métti lool gis ngeen leen nii ñoom ñu ngi dem ah wax nañu nag nee nañu bëgg nañu fi nga xam ne moom la ñu ñëw di Touba balaa. Euh, balaa ajuma bi nga xamante ni moom mooy jouru màggal gi ñoom bëgg nañu ku leen secouré ci li nga xamante ni moom mooy ndox mi parce que tamit bari na nit ñi dañuy ñëw gan yi dañuy gën di ñëw boobu ba tey yéen ngi gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, du ma ne rek murit yi jullit yi ah, ñoom ñëpp bàyyeekoo nañu fu nekk ah, pour mën a ñëw fi nga xamante ni moom mooy ah nee na fii kese amul ndox ah waaw waaw dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen loolu dégg ngeen nee na xam nga nu ñu leen mën a dimbalee ci li nga xamante ni moom mooy ndox bi rek ah dina doon li nga xamante ni moom moo leen di gënal bu baax ñun ñii sax bu ngeen xoolee pour ñu amal leen vidéo bi comme nii tamit dafay baax ñu nit ñu dugg sacrifié jaar ci biir ndox mi donte lépp lépp lépp mun na nekk waaye ak lu ci mënti am rek ngeen xamee ko ni dañoo bëgg rek solal leen li nga xamante ni moom moo fi amandeegum ci bi ñu fi yegsee ak léegi ndax ci suba ba léegi ñu ngi dugg ci coin yi di après sax nañ leen dugalal yeneen image yi nga xamante ni jëlal nañ leen ko ci yenn euh, ci yenn koñ yi ci yenn euh, bërëb yi nga xamante ni dem nañ fa pour toppal leen li nga xamante ni moom moo fa amee woon ah, ci ci ci ziar yi ci lépp loo xamante ni rek pèlerin yi tamit bi ñu yegsee mbégte bi nga xamante ni dund nañ ko fi ah, bi ñu fi gëjëg léegi am na si ñoo xamante ni nee nañu bi ñu fi gëjëg léegi mën nañ ni daaw la ci ci ci ci ci ci màggal gi ah ñii ne ci kasu rajab bi yooyu yëpp incha allah dinañ leen ko monteel dugalal leen ko ñoom it ñu ngeen gis nga xamante ni ñoom noonu la ñu ñëwee si si ci bërëb bi nga xamante ni moom la ñëpp di dawlu ñëpp moom la ñëpp di daaw dëgmal fi nga xamante ni moom mooy ci màggal gi mais daal tey li nga xamante ni moom lañ leen indiloon ginnaaw ba Euh, président Diomaye moom it ñëw na fi daa def tukki nemmeeku bii moo nekk sax troisième fois am biñ ko faleek léegi ndax biñ koy door a fal ñëwoon na fi seet si nga xamante ni moom mooy xalif général ñu koy ñaanal moom it mu gën fi yàgg ah, yàlla gën ñu ko fi bàyyil ak mbokkam yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk comme ay xalif généraux ñoom ñëpp ah, mais daal lii daal moo amagum fi nga xamante ni moom mooy ci Touba kon dañuy déggu ngeen xool li nga xamante ni moom moo amee ci biir ak yeneen reportage incha allah